Euh, salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi fii ci Tivaouane ci bis bu tedd bi bés bu mag bi euh, dëkku El Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu tey bés bu mag bi di bésub Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam fekk fi koo xamante ni euh, taalibe Serigne Babacar ci kër Abdoul Aziz Ndiaye lañ ko fekk tey Moussa Ndoye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di ziara ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay di jox jotal suñu ziara. képp kuy jullit rek ñu ngi lay jotale suñu ziara di wax ni guddi la nga xam ni guddi yonent bi la. mais guddee guddi yonent bi tamit xel day dem si maam suñu suñu maam El Hadj Malick xel day dem si sëñ Babacar si xel day dem si Balxaw mi sunu maam xel day dem si xalif général bi ak këll képp kuy kuy meññeenteef si nga xam ne si maam Maodo ah xel day dem si taalibe yi waaw moo waraloon suñu teew fi sunu suñu kilifa tamit mi Masata Ali Ndiaye fi nekk ñu am fu ñu nekkoon sax mu woo ñu ni dañoo nañ fi ñëw wuy ko moo waraloon suñuy tànk tey ñëw wuy si ko si. alors tey bésub gàmm en tant que taalibe Cheikh lan lay def ci yow bu bés bu ñëwee. waaw bésub gàmm bi ma xamee xam ak léegi musuma ko rate non ko rate. ma boo xam ni demoo bi ma xamee xam ak léegi musuma ko rate benn benn yoon heure bu ayee si kàttu ñaal ma préparé ko. ñëw gàmm ànd ak ñi ma war a àndal gàmm ba pare bu ñu paree ñu delluwaat. maa wax benn secret boo xam ne ñu bari sax xamuñu ko <laughs> dem naa ba ci kooku am na sa benn maam boo xamante ni moom ak maam Babacar Sy radiyallahu taala anhu ñoo doon ànd. mën nga ma wax ci kooku bi mu làkkoo sax yàggul. ziare naa ko ba gis ko un jour ñu amoon benn interview. dëgg la ko sunu maam bi mu làkkoo léegi yàggul muy sunu maam Ibou Fall dama di teg si beneen bi nga xam ne tamit moom ak si ak ci kër gi la bokkoon muy suma maam Alpha Combaan waaw moo nekk fii si Daaru alfa moom it maam El Hadj Malick moo ko fa teg moo sëñ kër ay wóolëre lañ kon tey loolu noonu man kër gi dama see bokk lii li man dafa am benn wax slogan rek may dégg si famille Sène surtout sëñ Baye Abdou maa ngi koy nuyu muy wax benn wax mu ni kër gi santul si kër gi yàlla sant kon loolu rek dafa dal xel kenn xëccuwuñu dara ñoom dañoo jël la bàyyi jox ko di wax ak jaamu yàlla yi ku leen déglu rek dégg waaw ku leen def kilifa am kilifa. kon yàlla na yàlla yàggal seen taxawaay sama maam jooju muy sama maam Ibba Fall yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljanna yi. koy seet si mi ngi am cent ans quelque mais naaxul mi ngi doon jàng alxuraan ba am lu leen waxoon. am lu ñu waxoon waaw. waaw am lu leen waxoon dinaa leen ñaanal ñaanal naa leen dinaa leen ñaanal bu ñu fi ñëwaatee. ma ñaanal leen ñi ku ci nekk di nga xam ne ñaanal naa la. yaa ngi wane samay secret nag. parce que feeñal mag du yàlla waaye yàlla kooku lool la loolu la ma waxoon. dëgg daan nekk ak sëñ Babacar dëgg la waaw loolu di nekk ak sëñ Babacar nekk ak tamit loolu dafa neex. kon yàlla na yàlla yokk seen i leer ñun ñëpp taab ñu seen i barke parce que ñun tamit amuñu dul yàlla ak yonent bi Maam Alaaji Malick ak sëñ Babacar si amuñu dul loolu ñun man loolu ñu wax leneen loolu tamit dara intéressé lépp yàlla nag képp képp ku fi nekk nga nekk këru diine goo mën a soxu man la ci njoñu Seydina Mouhamed nga kon ñun ñëpp benn ñëpp ñu ñëwatu Seydina Mouhamed lañ tey benn star moo fi am muy Seydina ñi ñuy wax ñëpp ay kiyam lañ rek ñëpp ñëpp déglu ma ñëpp koo fi dégg koo dégg da mag ñi mag ñi dañoo roy yonent bi ba jeex tak kon ñun taalibe yi nañ defaru dañuy defaru mais bu ci yàqu këru diine yi nañ ci defaru waaye buñ ci yàqu ñu bàyyi di dingat wala xàjjale beeg tas lii wala leen nono non nañu topp rek si li ñuy topp mooy nañu topp diine ji topp mag ñi xool mag ñi li ñu wax téere gi ñu fi xasida yi ñu fi teg dem nañ ko gëstu ji ku ko gëstu rek doo réer. li may tàggatoo ak yow mooy ban kéemtaan moo lay marqué ci sa diggante ak Serigne Babacar Sy wala maam El Hadj ban kéemtaan boo xam ne doo ko fàtte. waaw waaw bi may sàkku li may sàkku si sama digganteeg euh, moom sëñ Babacar si bi ma si mujj wax bi bu mujj am rek ndax bari na dama ñëw fii Tivaouane bi may ñëw du nawet de ma ñëw fii am combat ak euh, Tonnerre bi ma ñëwee def samay ziara ma ñëw sama xali sama sama sëriñ ki nga xam ne moom laa jokk ci moom muy maam Mansour ñu waxtaan a pare mun ma dama bëgg boo pare nga dem ziara maam El Hadj boo paree ak maam Abdou boo pare nga mujjee si sëñ Babacar si loolu la ma digaloon bi ma demee fu boo ma demee bi ma war def jox na ma ko du lu ñuy wax ma dem def fa dog bu ne ma dem ba sëñ Babacar bi ñu defee dog ba pare wallaahi azim dafa taw dafa taw waaw taw mu métti la taw Tiwaawan jour boobu taw mu métti la taw Tiwaawan ba ñi ma àndaloon kenn ki mi ngi bokk si waa kër maam Amari Ndak Seck kenn ki tey ma nga fees bu seetaane lii dina xam li may wax jour daa taw a a taw ñun ma lan la ma damay taw may sang ba set fii laa taw mi taxaw ba mu sëwit sama kaw jour fa lañ taxaw taxaw taxaw taxaw ma rot ci butéel boo xam dafa si man un an butéel boobu butéel bu ndaw laa sotti bi moom laa mujjee sottee ko si biir géew bi. moo tax nga dóor sa ay mu daw. non pas sax mais dama gëm nii xam nga yéene gi yéene yéene gi ñëwee woon la waaw. waaw dogu bi ñu dogu. Mm. te suñu baabag dañ ku dogu dafa ne ku dogu ma dogal la waaw moom ku dogu ma dogal la kooku mooy mooy li may de tous les danseurs. lay mujjee laa jóge nga ci combat gars yi ñu ngi lay loolu moom ci as tuut rek la ñuy ñam. waaw gars yi ñu mais incha allahu rabbi lépp lu si mën a xew ak lépp si mën a xew si kàttu naa la boo tegee si tànk kër ga dina ñaatal lépp nga xool luy mën a sotti saison bi la wala incha allahu rabbi kon ñu ngi xaar Moussa Ndoye saison bi mu bëri dina ñëwaat dina ñëwaat wala ko combat man du ma lu choc combat la wala jànk rek dépassé naa ay combat yi mbër bu garaaw mbër mu metti mbër mu soxor mbër mu lii mën na diis gan yooyu moom a neex man mais bii nii di ñëw moom bu soxor bu soxor bu diis te ah. incha allahu rabbi dinaa si génn sori ngeen sori nañ léegi ngeen signé léegi soobee yàlla boo ñëwee kër ga ma xoolal lan. bu baax. jeex na Serigne di beneen Moussa Ndoye ñuy wax Serigne Diour ak gars yëpp pare nañ di wax Massata Aliou Ndiaye maa ngi koy sant bu baax a baax di gërëm waaye bu baax a baax mais Massata Aliou Ndiaye tamit ngi koy sant di ko gërëm ak rakam yëpp waaw bàyyi ma ku lim jum yal na yàlla sàmm leen Sénégal yéen tamit yal na yàlla jàppal leen yokk leen ba ngeen yokk si barke yonent bi barke guddi gi yal na yàlla taxaw leen jërëjëf incha allah rabbi amul benn problème dinañ ci taxaw bu soobee yàlla jërëjëf jaajëf